bu ñu delloo ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ngir leeral ahadith yooyu danañu fekk ne al imaamul buxaari wal imaamu muslim ci seen ñaari téere yooyu solo nañu benn xadis wax ne sunu borom tabaraka yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na sunu borom tabaraka wa taala nee na ana inda vanni abdi bii wa ana maahu ida dakarani fa in dakarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsi wa in dakarani fi malain dakartuhu fi malain xayrin minhum maa ngi ci sama njortal jaam te maa ngi ànd ak moom su ma tuddee su ma tuddee ci boppam ma tudd ko ci sama bopp su ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo moo xam ne moo gën mbooloo moom ma tudd mu mel ni kon loo xam ne soo ko defee nekk ci maiyatullahi loolu am na solo yàlla nañ ci yàlla jàppale al imaamu muslim génnee ci téeréem wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na sabaqa al mufarriduun qaalu wama al mufarriduuna ya rasul allah qaal addaakiruuna allaha kathiran waddaakiraat loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax al mufarriduuna jiitu nañu ñu ne ko ñan ñooy al mufarriduuna yow ndawal yàlla li mu ne moo di ñi nga xam ne fu ñu toll dañuy tudd yàlla moo xam ay góor lañu moo xam ay jigéen lañu ñooñu raw nañu ñeneen ñu dul ñoom ak tirmidi tamit soloo na ci téeréem wal xaakim ci mustadrakam ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax ne alaa umbi'ukum bi xayri acmaalikum wa azkaaha cinda malikikum wa arfaciha fi darajaatikum wa xayrin lakum min infaaqi dahabi walfidda wa xayrin lakum min an talqaw caduwakum fa tadribuu acnaaqahum fa tadribuu acnaaqahum wa yadribuu acnaaqakum qaaluu balaa yaa rasuul allah qaala dikrullah yonent bi ne leen du ngeen ñëw ma soloo leen seen jëf yépp xeetu jaamu yàlla yi ngeen def yépp ma wax leen bi ci gën wax leen ba ca gën a sell fa seen boroom ëpp fa daraja gën fuuf ngeen di dépenser wurus ak xaalis gën sax ngeen di dajeek seeni noon ngeen di leen rey ñu leen di rey bi maanaa al jihaad li muy rëy rëy yépp ma wan leen lu ko gën ñu ne ko ah kay yow ndawal yàlla li mu ne moo di tudd yàlla alxaakim abu abdillah wax na ci téeram boobu ñu wax almustadrak ala saxiixayni mu ne hada xadithun saxiixul isnaad yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waxaat ne kii tudd yàlla ak ki dul tudd yàlla mi ngi mel ne kii dund ak ki dee différence bi am seen diggante moo am diggante kii tudd yàlla ak ki ko dul tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jële nañ ci abi abu hurayra jële nañ ci moom mu solo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na inna lillahi taala malaikatan tawaafin sun boroom am na ay malaaka yoo xam ne yatuufuuna fi turuq dañuy wër ci yoon yi yaltamisuuna ñuy sàkku di seet ahla dikri ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla fa ida wajadu qawman yadkuruuna allaha suñu fekkee aw gaay woo xam ne dañuy tudd yàlla dañuy wootente ñoom malaaka yi ne halummu ila xaajatikum ñëw leen li ngeen doon seet gis mi ngi nii su ko defee ñu wër ñooñu ak seeni laaf ba ci asamaan addu asamaan bi ngay njëkk a jot bu ñu delloo nag ci seen boroom yàlla di leen laaj laaju koo xam ne xam na fa yasaluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa aclamu bihim maa yaquulu cibaadi sama jaam yooyu toog lan la ñuy wax malaaka yi tontu ne ko yusabbixuunaka wa yukabbiruunaka wa yaxmaduunaka wa yumajjiduunaka ña ngi lay sabbaal di la màggal di la sant sun borom laaj malaaka yi ne leen hal raaw nii ndax dañu ma gis ndax gis nañ ma ba tax ñu may defal loolu malaaka yi ne ko wallahi ma raawuk ñi ngi giñ ci sa màgg gi ne gisuñu la sun borom ne leen waaw suñ ma gisoon naka la ñuy def ñu ne ko law raawuka kaanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjida wa akthara laka tasbiha ñooñu daal buñ la gisoon danañ yokk sax liñ lay jaamu danañ yokk liñ lay màggal danañ yokk liñ lay sàbbaal yàlla laaj leen ne leen lan lañ may ñaan ñu ne ko yasalunaka aljanna ñu ngi lay laaj aljanna pour nga may leen ko yàlla ne hal raawha ndax gis nañ ko ñu ne ko wallahi ya rabb ma raawha gisuñu ko mu ne leen waaw fa kayfa law annahum raawha buñ ko gisoon nag kon naka la ñuy def ñu ne ko law raawha kaanu ashadda alayha xirsan wa ashadda laha talaban wa acdama fiha raxba ajjana daal la ci nekk ci ay xeeti xéewal suñ ko gisoon danañu yokk seen itte danañu yokk sax seen xemmemteef ak seen xir ci aljanna yàlla ne waaw ci lan la ñuy muslu ñu ne ko ñu ngay muslu ca safara yàlla ne waaw ndax dañ koo gis ñu ne ko wallahi ma raawha gisuñu ko mu ne waaw buñ ko gisoon naka la ñuy def ñu ne ko law raawha kaanu ashadda minha firaaran wa ashadda laha maxaafatan suñu gisoon safara ak la mu lamboo ci ay xeeti mbugal kon danañu gën a jëf lépp lu leen koy soril danañu gën a daw safara ba bu ëllëgee duñ ca tàbbi bu ko defee la ca yàllay teg moo di ne ushidukum anni qad gafartu lahum maa ngi leen di seedaloo yéen sama ndaw yiite ay malaaka ne leen sama jaam yooyu jéggal naa leen su ko defee malaaka yi ci logique gu nit ak logique gu ku ñu bind ndax malaaka yi doonte duñu ay nit itam min al maxluqaat lu dul yàlla rek maxluuq la ci seen logique gu bopp ñu laaj yàlla daal ne ko fiihim fulaanun laysa minhum innama jaa li xaaja am na nag koo xam ne kii fekk nañ ko ca mbooloo ma waaye bokkul ci ñu doon tudd yàlla dafa ñëwoon ngir soxla su boppam la yàllay tontu moo di logique gu suñ boroom humul julasaau laa yashqa bihim jalisuhum sama gaa ñooñu toogoon di ma tudd ñooñu képp ku toogaaleeg ñoom doonte bokkoo ca ñoom sax daa am la ngay doon wut la la gaañe am daa ca am mu mel ne kon xadis boobu dégge nañ ci ne jotaayu tudd yàlla am na solo ngënelal daje itam ngir tudd yàlla kenn xamul naka la toll ndegam ki toog ak ñoom rekk la yàlla di sotti ci kawam ay xéewal waxantumalaat ñi nga xam ne ñoo ko doon def ndegam ki toog ak ñoom rekk mooy texe ndaxte ñoom dañuy wax ne man jaala sa jaana sa waaw man jaala sa jaana sa bu sa yéene sellee rekk bu neexee yàlla boo toogaalee gaañ rekk lépp lu ñu am rekk daa ci am loolu xadiis la buy wane ne tudd yàlla am na solo jële nañ ci abu darda radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na gaa ñoo xam ne yàlla dana leen dekkal yowm alqiyaama wa fi wujuhihim nuuru ala manabiri lu'lu gaa ñoo xam ne bu yowm alqiyaama yàlla dana leen dekkil seen kanam yi dafay leer nañ mu mel ne dañ leen di teg ci ay mimbaru wurus lu'lu yaxbituhum nnaas nit ñépp dañ leen di ñee moo ne laysu bi ambiyaa wala shuhadaa la seen cër boobu di rëy rëy yépp duñu ay yonent duñu ñoo xam ne dañu dee doon défendre l'islam ba ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallama fa jatha aarabiyun ala rukbatayhi fa qaala ya rasul allah sifhum lana naarifuhum benn aarabi daldi bóof ci ñaari bëti oomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañu bëgg nga melalal ñu gaañooñu ñu xam leen yonent bi ne ko humul mutahabuuna fillah min qabaila shatta wa biladin shatta yajtamicuuna ala dikrillahi yadkuruuna moo di nit ñoo xam ne bokkuñu sax melo dañoo bokk ci ay giir yu bari bàyyi ko ci ay réew yu bari waaye nag dañoo soppante ngir yàlla daje ci benn palaas buum nga nga xam ne moo leen di takke moo di tudd seen borom ak di ko fàttaliku yàlla nañ ci yàlla boole jële nañ ci abu saïd alxuduri radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu yowma alqiyaama sa yuclamu ahlul jamci min ahli alkaram ñu laaj ko ne ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallama man ahlul karam mu ne moo di ñi nga xam ne dañuy nekk ci jàkka yi di tudd yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne ñu jële ko ci anas ubnu malik ma min qawmin ijtamacuu yadkuruuna allaha azza wa jal laa yuriduuna bi dalika illa wajhahu illa naadaahum munaadin min alsama an quumuu magfuran lakum faqad buddilat sayi'aatukum xasanaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul wenn nit woo xam ne danañu daje di tudd yàlla te ngistal taxul ñu def ko rekk ngir sellal seen boroom di ko màggal di ko sàbbaal nammuñu ca lu dul jëmm yàlla ju tedd ja lu dul dana am aji woote ju bàyyikoo ci asamaan ci ndigalal yàlla ne leen jóg leen yéen ñépp jéggal nañ leen seeni ñaawteef yi yépp soppi nañ ko muy lu rafet jële nañ ci abu saïd alxudri ba tey mu ne sun borom tabaraka wa taala wala boog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man shagalahu qiraatu alqurani an dikri wa an masalati aataytuhu afdala ma uti saailin ndax loolu doyul ci li ñu dégg ci ay ayat quraniya dégg ko ci ay ahadith nabawiya ndax doyul ngir leeralal ñu ne zikr am na place bu rëy ci alquranul karim am na place bu rëy ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu dikkee ci waxi boroom xam-xam yi moo xam boroom xam-xam yi jiitu woon la moo xam ñi ñi topp ci seen gannaaw la danañu fekk ne lii alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ñoom tamit tofal nañ ci seeni wax ngir gën a fedd li loolu waxoon nañ ca ginnaaw ne abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma nee na woon yàlla amul benn farata bu mu gàll ci kaw jaamam ñi lu dul nga xam ne defal na ko xaddan maaluuma ab limite bu ñu xam ba noppi nag def ca ruxsa ne su ngant amee teggi naa farata boobu ba ba ngant lay yëkkatiku lu dul tudd yàlla fa innahu lam yajcal lahu xaddan defalu ko benn dayo walam yucadir axadan fi tarkihi illa magluban ala ahlihi mayul kenn ngant mu bàyyi ko ne leen na ngeen may tudd man seen boroom ci jamono bu nekk loolu feeñ na ci aaya bii yàlla wax ne fadkuru llaha qiyaaman wa qucuudan wa ala junubikum feeñ na itam ci li yàlla wax ne yaa ayuha alladina aamanu dkuru llaha dikran kathira wa sabbixuuhu bukratan wa asila ay billeyli wannahaari wa fi lbarri walbaxri wa fi lsafari walxadari wa fi wa fi xaalati algina walfaqri wa fi sixati walsaqami wa fi sirri waalaaniyati wa ala kulli xaal moo xam ci guddi la moo xam ci bëccëg la moo xam yaa ngi ci jéeri ji moo xam yaa ngi ci géej gi moo xam da ngay tukki moo xam da nga nekk ci teew moo xam da nga nekk ci jamonoy ñàkk wala jamonoy am wala ci jamonoy wér wala jamonoy feebar wala ci lu ñëpp yëg wala loo xam ne da nga koy def ci secret kenn du ko yëg wa ala kulli xaal ak xaal boo mën a nekk rek suñu borom tabaraka wa taala daf la sant ne nga koy tudd jële nañ ci ibnu ataillahi sakandari mu wax ne al dicru huwa taxallusu min al gafla wa nisyan bi dawaami xuduri alqalb ma alxaq nee na tudd yàlla moo di nga fexe ba def taxallus nga génn min al gaflati ci càggante wa nisyaani ak fàtte sa borom ba nga xam ne sa xol bi dawaami xuduri alqalb nga fexe ba sa xol fu mu toll mi ngi teew ma alxaq ànd ak sunu borom tabaraka wa taala wa huwa tardiidu ismillahi bil qalb moo di foo toll na ngay tudd turu yàlla bil qalb ci sa xol wala lisaan yi ak sa làmmiñ aw tardiidi sifatin min sifaatihi wala boog ngay baamtu di tudd wenn melo ci meloom yi wala boog aw xukmin min axkaamihi wala boog benn atte ci atte yàlla yi aw ficlin min afaalihi wala boog benn jëf ci jëfi yàlla yi aw gayri dalika mimma yutaqarrabu bihi ila allahi taala al imaamu al qushayri abul qasim al qushayri radiallahu anhu wax na ne al dikru manshuru al wilaya wa manaaru al wusla wa taxqiqu al iraada wa alaamatu sixati al bidaaya wa dilaala wa dilaalatu nnihaaya fa laysa wara al dikri shay'un wa jamiu al xisaali al mahmuudati raajiatun ila al dikri wa mansha'uha an al dikr ثم قال رضي الله عنه الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى بل هو العمدة في هذا الطريق ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر الإمام القشيري رضي الله عنه نينا تد يالا ممودي درابو ولاية تمودي لامبو بيغا خامني مودي موي ليرال نيت كي با تخ مو مانا اغ سي برومام li nit ki bëgg itam mënu koo am nag fekk jaarul ci tudd yàlla kii tudd yàlla na ko wóor tudd yàlla màndarga buy wane ne nit ki ak tàmbuleem wér na pour àgg ci yàlla xamal ne arrivé bu baax ku ko am rek da nga amoon départ bu baax nee na nag ki mën a am départ bu baax mën a am arrivé bu baax mooy kii tudd yàlla tudd yàlla mooy màndargam buy wane ne nit ki ak jógam ak départam jëm ci yàlla wér na ak àggam ci yàlla itam wér na nee na kon boog dara nekku fi ginnaaw tudd yàlla mbooleem jikko yu baax yépp boo leen dàqee rek ñu dellu ci tudd yàlla te nee na kenn mënul àgg ci yàlla lu dul nga saxoo tudd yàlla foo toll loolu la boroom xam-xam yi wax ci tudd yàlla boo dikkee ci ibnu qayim al jawziya radiallahu anhum jamian ajmain nee na xolu doomu aadama dafay xomaag nekki weñ gu ñuul ak xaalis di xomaagi la nga xam ne moo koy xacc nag ba mu mën a weex tàll mën a leer moo di tudd yàlla moo di tudd yàlla mu mel ne kon xomaagu xol dana amee ci ñaari yëf càggante bañ a tudd yàlla ak bàkkaar boo xam ne da nga koy saxoo la koy dindi nag moo di foo toll ngay jégglu sa boroom ak di tudd yàlla xol bu xomaak yàlla nañ ci yàlla musal ndax nit ki dana fàtte yàlla ci bañ koo tudd di daw ci wàllu àdduna rekk guddeeg bëccëg doota la fàttaliku yàlla topp itam bàkkaar yi sa bànneex ak sa bëgg-bëgg dema dema dem ba sa xol muuru àgg ci dayo boo xam ne te xol bu demee ba xomaag ba muuru ngir bàkkaar yu bari wala boog fàtte yàlla bañ koo tudd dema dema dem ba fàtte ko lam tantabi fihi suwarul maalumaat ala ma hiya alayhi dana dema dem ba nga xam ne li nit ki war a xam dootul sax mën a feeñ ci xolam dafay lëndëm ba nga xam ne nit ki ci jaaxle lay dëkk dootul xàmmee dëgg ak caaxaan waaw dootul xàmmee dëgg caaxaan dafay dema dem ba ni muy jàpp mbir yi ak ni muy amee du bokk bu gisee dëgg du ko xàmmee bu gisee caaxaan itam du ko xàmmee loolu benn mbugal la ci mbugal yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala dana ko teg ci kaw jaam boo xam ne dafa sàggane tudd yàlla topp bànneexam yàlla fay leeru xolam gumbaal basiraam yàlla nañ ci yàlla boole musal suñu borom tabaraka wa taala bi muy waxanteeg yonent bi ne ko wala tuti man agfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawa wa kaana amruhu furuta loolu dana wane ne alxaflatu baaxul sàggan ci walis tudd yàlla baaxul mi ngi wane itam ne ittibaaul hawa topp sa bànneex nuur ci bàkkaar yi itam yal nañ ci yàlla musal moo tax ba al imaamu faxru diini arrazi bi muy firi aaya bi wax na ne bokk na ci liy waral dugg safara yal nañ ci yàlla musal alxaflatu an dhikrillah bokk na ci li nga xam ne dana musal jaam bi ci mbugalum safara mooy tudd yàlla yal nañ ci yàlla dimbule waxoon nañ itam ne ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub kon mu mal ne baril tudd yàlla ku ko saxoo jaaxle ak lëj-lëj yi am ci àdduna ak rëng-rëng yii fi am ak ñàkk am itminaan yow da nga ci mucc insha allahu tabaraka wa taala tudd yàlla moo di raaxatul qalb moo di huduu nafs moo di qurratul ayn fa dikru huwa raaxatul qalbi wa huduu nafsi wa qurratul ayn moo tax ba al imaamu al xasan al basri raximahu llah wa radiya anhu daana wax ne tafaqadu lxalaawata fi talaatati ashyaa fi lsalaati wa fi aldikri wa qiraati alquran fa in wajadtum wa illa faalamu an albaaba muxlaq ban neex na ngeen ko seet ak neexit ci ñetti yëf ci julli ak tudd yàlla ak jàng alquran su ngeen ko ci fekkee rek na ngeen su ngeen ko amee rek na ngeen xam ne am ngeen ko waaye leneen lu ngeen am bànneex lu dul loolu rek na leen wóor ne bànneex bu foo la waaye daal bunt ba ubbeeguñ ko tudd yàlla ndegam nag loolu lay jëriñ jaam bi ndax ñun waruñu cee taxaw ci suñ jamono bii nga xam ne bàkkaar yi dafa bari jëf yu rafet itam néew na ci tiis yeeg njàqare yeeg yépp jaaxal doomu aadama yi ndax jamono bu mel nii waruñu cee baril di tudd yàlla ak di ko fàttaliku ak di ko topp ndax mboolem xeetu topp yàlla yi ci ay jaamu yàlla ak di ko tudd ak di génne ay sarax dafay jañ tiis yi ak ñaawteef yi te kat nañu xam ne nitu yàlla yi dañuy wax ne alxataaya magnatisul balaaya ñaawteef yi ak bàkkaar yi ñuy def mooy asiyewu balaa yi nga xam ne mooy dal ci sunu kaw ni asiye di xëcce weñ gu ñuul bàkkaar noonu lay xëcce noonu lay warale ay musibaaki nattu yàlla di ko teg ci kaw jaamam ñi ngir yar leen ngir wëlbati leen itam walis mboolem mu xaalafaat yi nga xam ne danañ ko def muy ay nattu yu bàyyi ko ci suñu borom tabaraka wa taala moo tax ñu wax ne bokk na ci liy woyofal merum yàlla ci kaw jaam ñi moo di jaam ñi daw dellu ci moom di jëf-jëf yoo xam ne danañ ci am ngërëmal yàlla ci di ko topp ak di ko jéggulu ak mbooleem xeeti ñaan yi nga xam ne sharia tëral na ko ak ay adkaar ak di julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yépp bokk na ci liy wàññi merum yàlla bokk na ci liy teggi natt yu ci suñ kaw nit ki bu demee ba metit yi dajaloo ci kawam nattu yi ak tiis yi dama dem ba wër ko humuum yi ak ahzaan yi dama dem ba peeg ko ci wàllu gu nekk ak mboolem xeeti feebar yi defe naa ne ku mel noonu da nga aajowoo ku jàpp ci sa loxo génnee la ca la nga nekk ci ay jaaxle jullit bi gëm yàlla amul benn jaaxle ndax saa bu loolu xewee rek dafay daw dellu ci boroomam tuub jéggulu sàkku ndimbal ci moom yàlla xettali ko ki nga xam ne dafa weddi yàlla wala ngëm yàllaam dëgërul moom dafay làmbatu rek buntu yépp dañ koy tëj ci kanamam du mën a am yoon woo xam ne moo koy may mucc du mën a am yoon woo xam ne moo koy àggalee ci tuma nii na war raaxa loolu kenn du ko werante waaye nag jullit bi mën a am loolu mooy jullit bi nga xam ne dafay xam jaamu yàlla lan lay wuntu boo dikkee di julli nga bañ koo yemale rek ci rukkoo ak sujjóot ak sëgg ka siggi ak toog taaya loolu ay xarakaat la yoo xam ne bii dafa laaj nga def ko ànd ak teewlu ak tamit nag jéem a jokkaloo ak sa borom ci diir boobu nga xam ne yaa ngi koy def soo ko defee rek da nga yëg ci sa ruux da nga yëg ci sa yaram loo xam ne kenn du xam fan la bàyyi ko ni nit ki di yëge tàngooru jant bi noonu ngay yëge ne yàlla am na ci lu dul benn werante moo tax ba tudd yàlla am solo te soo ko dee def itam nga teewlu ko am solo ndax mooy may jullit bi mu am tuma niina moo koy may sakina moo koy dimbale itam ci wuñ ñi mbooleem njàqare yi ak tiis yi ñaan goo xam ne da nga koo teg ci yoon muy ñaan gu dëggu nga sellal ko teewlu jëmmi yàlla ja soo ko defee rek yàlla dana la may kóolute ci sa bopp dana la may itam raaxa nafsiya moo tax suñu boroom tabaraka wa taala di wax naan wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa'i ida daan daw ma fenn maa ngi nii jege lool su ma sama jaam yi buñ la laajee anama rek ne leen maa ngi nii jegeñ ku ma woo rek danaa la wujju yàlla waxaat ne am man yujibu lmutarra ida daahu wa yakshifu suu ci aayaat yu baree bari yàlla wane ne moom rek mooy ki nga xam ne moo mën a xettali ay jaamam teg leen ci yoon jaam ña nga xam ne yàlla dana leen xettali ngir fu ñu toll di ko tudd jox ko li mu moom jaam ñooñu yàlla nañ ci yàlla boole jaam ñi nga xam ne itam bu ñu dee tudd yàlla danañ ko def ci seen làmmiñ def ko ci seen xel def ko ci seen qalb def ko ci seen ruux def ko ci seen sirr ba tax yàlla man leen a boole minal muqarrabiina ñu am maqaamu minal muqarrabiina yàlla nañ ci yàlla boole minal ambiyaai wal mursaliina wal awliyaai al akmaliin jaam ña nga xam ne bu ñu dee tudd yàlla dañ koy defee seen làmmiñ kese duñ ko ànd du ci ànd ak xalaat du ñu teewlu seen boroom seen xel du ca bokk seen ruux du ca bokk seen sirru du ca bokk boobu xeetu zikr nga xam ne dañ koy delloo yal nañ ci yàlla musal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain loolu ci gàttal mooy band bu njëkk bi nga xam ne dañ ci leeral lan mooy tudd yàlla ak ni ko alquran indee ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indee ni ko boroom xam-xam yi indee ñu ne woon nañ ko def muy sunu muqaddima ngir dalal xelu nit ki ne ko tudd yàlla du bidaa bu ñu fent waaye mbir la moo xam ne am na cosaan ci alquranul karim am na ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tudd yàlla mooy buum wala boog mooy échelle bi nga xam ne képp ku bëgg àgg ci yàlla il faut que da nga ci jàpp wala boog ci ngay jaar ngir mën a yéeg soo ko sàgganee itam mi ngi mel ne rek nit koo xam ne dafa dëkk ci ay bàkkaar fàtte yàlla dana dem a dem ba xolam yàlla daf koy tamponné mbooleem lu ci nekkoon ci leer dana dañ nga fàtte yàlla sàggane ko topp sa bànneex bu ëllëgee yàlla fayale naari jahannama loolu yàlla nañ ci yàlla musal ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabi ajmain loolu mooy band bu njëkk bi ñu fas yéene leeral nag ci bandu ñaareel bi inchaa allahu tabaraka wa taala zikr ci at tariqa tijaniya naka la ko sidina cheikh tërali jële ko ci maamam radiallahu taala anhu ñu gis itam nag ne sidina cheikh moom nga xam ne mooy sunu kilifa ci wàllu tariqa bi balaa ñuy agsi ci moom ci zikram ni mu ko tëralee ci tariqaam danañu leeral mooy kan moo tax ba bandu ñaareel bi liñ ciy njëkk a def mooy indi biographie sidina cheikh radiallahu anhu fan la jaar ba maamam jox ko werd wii ñuy werd tey su loolu paree nag ñu door a indi adkaar yi nga xam ne tariqaam lambe na ko yal nañ ci yàlla dimbale wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin